abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokk internet yi gannaaw nag la nga xam ne rek moom moo xew foofu foofule ca diwaan Touba mën nañ ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké rek ñu fa yéene see dikkaat gannaaw gi nag euh, dañuy dikk rek ci li nga xam ne rek moom mooy ala in mën nañ ne Djibi Gueye Ndiaye chef bu président Ousmane Sonko mi nga xam ne rek daal dinay jot yëy yàbbi ci euh, génnub ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko mën nañoo jàpp que ne kat jamono bi ñu toll nii li patriote di xaar du lenn lu dul loolee rek ci jamono bi ñu toll nii moom mi nga xam ne nag moom mooy Serigne Mountakha Mbacké rek mën nañ ñe gannaaw euh, bu ñu fàttalikoo ci ay ndigal yoo xam ne rek jiboon na fi ca dëkk bu sell boobee di Touba ne woon kat lépp loo xam ne rek dafa xeetoo ko politique dañ ko fay daal di jëlee euh, taxoon nag mu jël liggéey bi teg ko ci loxo yi Baye Fall yi mën nañoo jàpp que ne kat euh, premier pas bi nga xam ne rek moo gën a marqué sénégalais yëpp ci jamono bi moom mooy gannaaw bi ñu gisee photo bi nga xam ne rek mi ngi circulé ci euh, semaine bi yëpp rek muy photo benn arrêt boo xam ne rek dañ saa def photo Ousmane Sonko bind sa nag fi mooy are Sonko mën nañ ne kat euh, photo boobee ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Baye yi euh, dañ ko daal di dindi rek dammate li nga xam ne moom mooy weñ ya ci ndigalu ki nga xam ne rek moom mooy sëñ bi nga xam ne mën nañ ne waxoon na ne lépp lu dellu ci wàllu politique soxlaatu ko fi nga xam ne rek moom mooy dëkk bu sell boobee di tuuba Mbacké